rabbi bi ma yasra lasana faja bi jayi afdali man lillahi khalaja auzu billahi samil alim bismillahi rahmani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaw ñu ngi leen di sant di leen nuyu di leen fàttali li nga xam ni fàttewuñ ko muy màggalu daaru salaam waaye nag di màggalu murit yi te màggalu bi ñuy wax màggalu daaru salaam dafa lëkkalook màggalu Touba ndax bi bee day dem ak sëñ bii di ñëw ak sëñ waaye nag dañoo ni ñu lëkkaloo ci zaahir noonu lañu lëkkaloo ci baatin ndax ñepp xam nañ ni señ Tuubaa bi mi dem ci geej gi lim waxon sababu khaybati an allah arada an anna allah minhu jaah wa an akuna shafian li qawmi wa akuna khadiman fi dawmi kon sababu tukki bi ñepp xam nañ ni li ci señ bi wax moy ñett mbir mo doon sabab bi benn bi suñ borom daf koy décorer daf koy jox grade bu kawé ci wetam benn bi suñ borom lam ca jubloon pour mu nekk xaadimu rasul bi ci des ngir mu ràmm xeetam wi boo xoolee bi mu demee ci géej gi bi mu liggéeyee ba liggéey bi jeex itam bari na bayit yu mu wax yoo xam ni xam nañ ni suñ borom jox na ko garaat bu kawe ci wetam ndax yoxalimul xayu lasi la si yamut alxalqu in abadan lastu amul loolu garaat bu kawee la illa yaxaadallah ma lam yakun wala yakun abadan lil mumkin loolu garaat bu kawe la bayit yu bare bare yoo xam ne xam nañ ni kon la ko suñ borom diggoon jox na ko ba mu demee ba war ñibbisi itam nee na ca biir bato ba la ko suñ borom wax ne alamani rahmaani fi safina bi ànd ni xaadima zilmadina donc ci bato bi suñ borom xamal na ko kon def jox naa la garaat xaadima rasul waaye ba muy ñibbisi itam ba ko maam Cheikh Anta ñaanee ndax loolu xëy na lu ñu ciy dugg rek tuuti ndax maam Cheikh moo moo waral màggal gi waaye moomut màggal gi ndax ba mu demee fekk ko ci géej gi ne ko nit ñi kat dañoo jaaxle woon ndax tubaab bi ñu ngi indi xabaar yoo xam ne ñu ngi wax ne dootoo ñibbisi tax kuñ mas a yóbbu ñibbisi wow faat nañ la wala yóbbu nañ la feneen ba kenn dootu la déggati. mu ne ko ah, man mi de bu liggéey bi natt bi jeexee itam man damay dem feneen rek eggale liggéey bi maam Cheikh na ko nag boo ñibbi si wut nag lislaam fay Sénégal ndax dañuy jàpp ni yaak ñi ñuy jàppoon yéen yam ci la ko ñaane ba mu sëñ bi na ko kon danaa ñibbisi waaye nag nattu bi desoon na ñeenti weer fekk si gii nga ma fekk si nag ñeenti weer yooyu danañ la ko ful ñeenti at yow it da ko mottali ndax ku ñot ñedd saayir da nga ñedd baatin bisi googu nag ci ci la ko eh, maam Cheikh ko nag fan lañ lay waajal ndax amatoo fa kër ci la ubbee alxuraan yem ci aay wallaahi yadduhu ila daar salaam wa yahdi man yasha ila siraatal mustaqim kon mën ne ko yàlla yabal na ma daar salaam boo demee na nga waaj waaye suñ tuwaa daal nag ijar rujuhi ila xawmi saadatana wal tag fi na yowmu jami xalqi niirana ñibbi gii may ñibbi ci nag ci xeet bi def ko nag maanaam muy texek talibé yi waye def ko nak mu fegal len safar ëllëg kon ñettel ba nga xamni ni ci sababu xaybati ñettel bobu ah manam señ bi am ko fofa kon nag bu ko amé ci ñibisi ma euh, ñibbiseem googu muy muy bisuk magal daru salam kon magal gi du magalu wa daru salam magalu mouride yep la lolo tax mané dafa lekkolok magalu touba kon nag mouride yep war delo delloo euh mam Cheikh hanta. waye mam Cheikh hanta mom da dañ koy dellowaat sëñ Tuubaa ndax moom amut màggal kenn du ko màggalal dara lu mu am da koo dellowaat sëñ Tuubaa kon nag ñun dañ koy delloowaat sëñ Tuubaa xam ni màggalu murit yi la ni ñuy màggale màggalu tubaa muy dem ak sëñ lii di màggalu sëñ Tuubaa bi mu liggéeyee ba pare ñëw kenn ku ne ci ñun xam nga ni am nga yéene maanaam waxuma la sa leader ndax leader politique leader sportif yu mel noonu ñëpp dañuy ñibbi si def ndam sax nga leen di feetal rawatina nag ñun ñi nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ëllëg te lam ñu fàggul ci ñibbisi googu mooy suñu taxe ëllëg ak fegal ñu safara kooku kenn ku ne war nga ko màggal kenn ku ne war nga am yéene màggal ko ko ndax maam Cheikh dafa amoon yéene gi am mën gi ndax nit ki mën naa mën na koo mën te doo am gi mën nga am yéene gi te doo ko te doo ko mën maam Cheikh boole ñaar yëpp nag defal ko murit yëpp fasaale ci murit yëpp kon nag bis boobu bu delsee murit yëpp war nañ xam ni seen bis delsi na ba ñu mën ko war a màggal delloowaat ko sëñ Tuubaa ndax maanaam euh, ndamuk murid yi la suñu ndamu euh, bopp la kon nag euh, nañ ko jàppe ni eh, maanaam yëfi yëfi yëfi yëfi taalibe murid rek la waaye du waa Daaru Salaam waa Daaru Salaam amuñu bis amuñu bis bu ñuy màggalal maam Cheikh Anta wala ñuy màggalal doomi maam Cheikh moom maam Cheikh lu mu masaam dellowaat na ko sëñ Tuubaa te bis boobu da koo defoon bis boo xam ni ku fa ñëw xam ni sëñ Tuubaa dayo bii la toll ndax buñ la koy nettali da nga yaakaar lu amoon lu amna na ju net ci jamono bobu ndax dem na ba Angleterre ba Londres di wut ay xewal yo xamni manam bo ci jamono ay bour rek ko koy lek mune bëgg na bis bi nga xamni ni dañ koy magalal Seigne Touba manam lu waay masa xemem ci lo xamni bour ko da lek wala wala borom alal manam nga ñam ko ngir xam Seigne Touba mu xamni Seigne Touba bokku nak dan dem na ba maanaam njanaawi sax mu ne war nañu xamni ni seigne touba bisub seigne touba la ci lool taxone mu mu ay ay ay ay ay mbam sanni ko ci àll bi tani wacc di xiiroo ak ngaayo ngir ngir ngir ngir ngir xamni seigne touba mom lañuy la kon ci la waxon ne manam bu nit dagalon sax mu rayel seigne touba nit ci la na woon ana ku ku ku ku ku nangu ñu teural la ah góor gu naan sëñ Kamara ñëw daal di ñu tak ay beutam maam si nako bu dagalon legi ñu rey daal nako seigne touba gis nga bu dagalon ma rayel la nit mu nako waye dagalon kon nag ko ab jaam la goral nañ ko mu doonu taalibe ñu jox ko sëñ Maam Mor Jaara ndax loola lam fa doon wane rek ni maanaam ak taalibe bu murit mooy li alxuraan di wax lazina amanu wa ajaru wa jaahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum maanaam ahzamu darajaat indallahi ndax loolu boo xoolee rek bàyyi faal foofu lay dugg ndax yàlla tudd tudd fa tudd fa julli tudd fa woor tudd fa dara dafa ne lazina amoon yéen ñi ma mu aajoro te ngeen gàddaay wa jaadoo te ngeen di xeex fi ci yoon yàlla bi amwaalikum ak seen alal wa anfusikum ak seen bakkan kon foofu la bakkan tëddee yàlla mun a ahzamu darajaati indallahi yéen a gën a màgg a daraja ci ci man yàlla woowu laa ko mën faa seen te yéen sax aji taxe ngeen ma noppi kon maanaam moom Cheikh Anta loolu rek la doon wane foofu kon moom nañu delloowaat maanaam lépp sëñ Tuubaa xam ne bésub sëñ Tuubaa la waaye nag xam kuy dem ci bi seigne touba nan ngay waje ak nan nga fay nan nga fay nekké loolu moy li ëpp solo bu yàggul rek dégg nañ seigne bi lim téré touba kon ñi dëkk touba am nañ nu ñuy doxé waye ñuy jëgé fenen tam jappé seen bop wa touba bu ñëwé fofu dañu mel ñu dëkk touba kon la téré fofu mom lañuy téré dakar ndax jël yitu kulaha masajid seigne touba semuk wax sama dëkk sama kër yépp ay jakk la kon nak daara ja ngeen nekk Dakar japp leen ni kër seigne touba la xam leen ni jakk la melokaan melokaan ba ngeen fa bu ngeen ñëwee Daaru Salaam melokaan woowu rek ngeen fa war a yor na ngeen fa war a doxale noonu ngeen na ngeen war a doxalee Dakar ak na ngeen war a doxalee Daaru Salaam ñooyam ndax dañ naan taalibi kat ni mu bëggul eh, sëriñam fekke ko saa su ne na maanaam loola bu ca ne ni nga bëgg sa sëriñ fekke la saa su ne na nga na nga sax ci loolu waaye bul ne su su ma demee Touba mel ni waa Touba su ma delloo ci réew mel ni Kooba maanaam loolu Moussa ko wax di wax kon nag nañu fexe ba waajal ko ci pas-pas ci gëm selal xol yi ba nga xam lañ fay taataan ci la nga xam señ bi fagul lañ ko ndax señ mam Cheikh Anta kat moom ñi bok ci mom dafa wax ni bis bi laay wote te moy sama bis fa yalla ku fa hein ah, boy delu bu boy delu da nga am khairul maram khairul maram moy ngeen ji ciakute kon nak yalla ñu yalla defal ngeen ji ciakute ci barke borom borom bis bi inshallah wa rabbi bi ma yasra la saana